ak jàmm ami site internet bi tv li gën a fas ci bopp xabaar yi dañ koy doore coalition yeewi askan bi nga xamante ne dafa daal di réagir bi nga xamante ne nag moom mooy ca réanimation a gaawe ak képp koo xamante ne rek ab détenu politique nga dañ la bàyyi nag nga ñibbi fi nga moom moo nekk fukki fan ak juróom-ñeent na ko ab xiifal fan bi nga xamante ne dafa bañoon na du faju nag gannaaw nag demande bi yi nga xamante ne ñu bëri rek daal dinañ koy demandé ngir mu arrêté boobu le mbir te fas yéene moom nag moom di xam ne rek ba tey moom Ousmane Sonko moo di ne régime bi nga xamante ne nag dafa rancunier ba noppi rek di arrêté nit ñi ci nu mu leen neexee ak ay yoo xamante ne rek teguñu ko fenn ak mandat de yi nga xamante ne ñu ngi koy placé kii di Ousmane Sonko ak ñenn ci détenu politique yi nag loolu moo nekk injustice boo xam ne bu ko naqari la te dara waralu ko rek dul Macky Sall nag ak nguuram mu waral rek mu daal di lànk rek bañ a jël benn soin wante nag jamono ji ma ngay euh, dankaaf bu baax sénégalais di leen woon nag ñu gën a mën mobiliser wu rek gën a xeexaat naka ba démocratie delluwaat ci biir réew mi ñu fàtt leen coalition Yewwi Askan Wi nag ginnaaw di séduction bi nga xamante ne defoon nañ ko nag ak interdit bi nga xamante ne rek def nañ ko ngir mu amal li nga xamante ne nag moom mooy après point de presse situation bu nu mel nag dañoo jàpp ne ap otage politique la rek Ousmane Sonko di ko dund nag ci kanamu Macky Sall moom nag la ñu daal di xamlewaat rek moo di ne lépp loo xamante ne xew na rek kii di Ousmane Sonko ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy jëtuni politique yi kii di Hannibal Djim Cheikh Bara Ndiaye Pape Abdoulaye Touré ak ñeneen ak ñeneen nag nañ leen libéré ci nu mu gën a rek ñibb fi nga xamante ne nag moom mooy ca seeni kër du ñàkk dinañ ci ñawaat yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen i info